mu ne kon nag bul bokk ci ñi la ñi ñi àdduna di nax nee na te maa ngi lay yëgal ne bànneexu àdduna kenn du ci suur kenn du ci doyal nee na mu ngi mel ni kuy naan ndoxum géej nee na loo mar mar mar nee na soo dee naan ndoxum géej sa mar day yokk wante doo màndi ka shaaribi maa il bahari man qad yarumuha fa xullatuhu tasdaadu wa sharubu nee àdduna daal qasirun yaraaha alxaafiluuna tawilatan wa ma hiya illa lamxatun wa gurubu nee na qasirun moom àdduna dund bu gàtt la dund bu néew la wante yaraaha dana ko gis nag alxaafiluuna way sàggan ñi danañu gisee àdduna tawilatan ne dund bu gudd la ku ne àdduna ngi lay nax ne la da dund dund bu yàgg ku nekk yi mébét nga wutal nga sa bopp nag at at yi nga fi war a dund ña gàttale ak ña guddile ñoo ca yem ku ne rek mebet nga ne àdduna daal da fi yàgg waaye yàlla xam ki fi yàgg waaye góor gi nee na daal xasirun dund àdduna dund gu gàtt la yaraaxa foog na alxaafiloona way sàggan ñi ne tawilatan dund bu gudd lay doon te kat wax ya àdduna nekkul illa lamxatan lu dul as ngendeeku wa xurubun akuk so rek kon axi fajtahid fi l yowm wal amsu faitum wa fi gadina yaa dal la xuyubu mu ne kon yow sama mbokk mi axi yow sama mbokk fajtahid na nga farlu fil yow mi ci tey ndax nit tey la am àdduna ñetti jamono la démb ak tey ak ëllëg démb weesu na du dellusi ba mukk tey moom nga am xamuloo ndax danga ko génn walla déet suba nag kumpa ñëwagul xamuñu ndax ñu ca yegg wala déet kon comme tey nga am nag profiteel ci tey def ci ak mbaax balaa mu la rëcc bis yi nga am mooy sa alal su la rëccee rek perte nga su la rëccul nag gañe nga moo tax mu nekkoon axi fajtahid fil yawm na nga farlu ci tey jile wal am su ndax ëllëg faa itun weeyi na nee na wa fi xadinaa suñu ëllëg nag yaadal wanaa yow ko doye di kii ba jàpp ci àdduna maa ngi lay yëgal ne ëllëg la rayubun kumpa xamuñu ndax daneen ci yegg wala déet qalilun baqa minha al qalilu walaw dara maxabataha man ramaha la yaubu nee na dund bu néew la ndax àdduna bi mu sosoog fi mu sosoog fi muy jeexe benn la nee na te bi àdduna commencé léegi mu ngi bëgg a yàgg kon loolu day wane ne li ci des mu tukki bareetul mu ne waaw dund bu néew boo xam ne daanaka genn wàll ga dem na bu tuutee ca des nee na yow la nga ci am bareetul kon nag profiteel ndax xalilun àdduna lu néew la baqaa des na min ci moom alqalilu lu néew ci fan te kat walaw dara bu xamoon maxabataha kumpay àdduna man ki koy sàkku bu xamoon àdduna li nëbb ci pexe yu bon pour nit kon la yaubu nit dana fi ne ñukk àdduna dellu ci boroomam kon nag yafirru ilal mawla kama qaala rabbuna fa firru ila allahi nee na la yaubu dana dellu moom waa jooju yafirru di daw ilal mawla jëm ci yàlla bàyyi àdduna gettu ko su fekkoon xam na li àdduna ëmb ci ay bon bon ak i pexe pour nit ko nit dana daw wuti boromam kama qaala rabbuna comme ni ko yàlla waxee ci alquran ne fa firru daw leen ilallahi alqaribi jëm ci yàlla mi di mi leen jege ajibu jileen seen boroom ndax moo leen bëgg moo tax ñu ne atarda xabiban yudxilu naara xibbahu li xumqin wa jahlin inna daala tabibu nee na ndax nangu ngeen ab soppe buy dugal soppeem ci musiba bu toll ni safara ngiruk ndofte akuk réer kon bu leen nangu mukk di topp seen bakkan wala ngeen di topp àdduna wala ngeen di topp seytaane ba mu dugal leen ci kër goo xamante ni këru musiba la mu ne nag ñaara fi nekk mooy biir bi ak awroy ak awra bi nee na koo ci jox la mu lay laaj rek bu yàggee mu dugal la ci alkande waaw mata tuuti xibbi ajwafayka bugaahuma ataa laka aarun musbidun wa muibu nee na temps boo joxee sa awraak sa biir lañu soxla fu ñu la fekk daal yaa ngi yittewoo lekk ba suur wala fu ñu la fekk yaa ngi yittewoo jongama nee na bu yàggee gàcce gu rëy dana la dal te moo di yomal xiyaam du am dara kon nag naawal jëm ci sa boroom ak ñaari laafi ragal yàlla ak yaakaar ko janaaxay raja wal xawfi tirnax wa maliki kafaaka rada baaril anaami xasibu mu ne kon nag boo bëggee àgg ci yàlla nee wutal ñaari laaf laaf bii da cee ragal yàlla ba mu jeex beneen laaf bi da cee yaakaar yàlla ba mu jeex ragal yàlla ndax pexem seytaane ak soppikuk àdduna ak ñàkk xam ci loo ne yaakaar yàlla ci yërmandeem xam ne itam yàlla jaamam rek la bëgg foo tuubee rek foo moyee rek tuub tuubal bu la seytaane découragé mukk di la won ne yàlla seexluwul kenn yàlla bañul kenn ak loo taq-taq ci bàkkaar saa boo jógee jëm si ci moom rek moom xajoon na la ak lu bàkkaar ya bari bari kon nag bu la seytaane découragé bul bon ba foog na yàlla jéppi na la bañ na la déedéet jana xay raja wal xaw tir nax wa maliki kafaaka rada baadil anaami xasibu mu ne moytul itam sa làmmiñ lisaanaka in atlaqta yakuluka innahu ka laysi sara ka si saral aadil jërda wasuub nee na sa làmmiñ soo ko boyolee di wax rekk te contrôlé wuloo sa bopp li ngay wax seet la ca neex yàlla la cay ak rambaaj nga sànni ko la cay jëw nga sànni ko la cay ak naafeq nga sànni ko di wax ngir jëmm yàlla nee soo ko deful maa ngi lay yëgal ne làmmiñ am na doole ju ëpp doole gayndeeg njëloor waaw kon nag moytu ko moo tax mu ne wa uxraaka fatlub summa dunyaaka fatrukan muiddan lima lil aalamina yudibu mu ne wa fatlub na nga uxraaka sa àddun na la alaaxira ñor bàyyil ma àdduna su ma dunyaa ka fatrukan bàyyil àdduna lu tax muiddan pour nga mën a préparer li ma ñeel xew-xew ya nga xam ne yusibu nee na dana dana ruyal lil aalamiina ñeel mbindeef yi maanaam ëllëg yow man xiyaam xew-xew ya fay am yàllaa ngi wax ne tiit ba ca yow mal xiyaam bi su taxawaay ba nee na bu ñu ko wanoon jigéen ju ëmb nee na dana jur ci saa si ndax tiitaange yu ëpp nee na tiit ya ca yomal xiyaam buñ ko wanoon gone gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nag tiitaange yooyu mbindeef yëpp daneen ci ruye maanaam nit bu jàqee doon borom yaram su bëree ay problème am de bu bëree ay problème day jeex ndax tiis yaak njàqare yaak problème ya ñoo ko jeexloo rawatina problème mu àllaxir moom nit ñi dañ cay ruye waaw moo tax mu ne kon nag nanga prépare bis boobu la koy préparé nag moo di jikko ju rafet la koy préparé mooy jéem a dëppook sa borom nee na wa nafsaka charit thumma raqib wa xaasiban wa aqib wa jaahid aatiban na tanuubu nee na yeddal ma sa bakkan wutal ko ay charte bu ko bàyyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la dee ko fuglu dee ko rekle dee ko mbugal jihaatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu mën a dellu ci boroomam nee na moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baaxul nee na moytul ma fen wala taku kadaaban amaamaka mawqifun mahibun si wal muxtaari fihi raxibu nee na moytul ma fen ndax dafa bokk ci bàkkaar yi gën a rëy nee na itam na nga bàyyi sa xel ne taxawaayang ci sa kanam taxawaay boo xam ne nee na ña ca doon fen danañoo am musiba bu rëy te taxawaay la boo xam ne ku ci dul yonent bi rek da tiit da nga rapi kon nag bàyyil sa bopp xel xam ne yowmal xiyaama ngi ñëw nanga moytu njistal tey def ngir yàlla wa janib riyaa annaasi laa nafaa minhumu wala darra ma lam yaqdi daaka raqibu nee na nit mënulaa jariñ mënulaa lor xanaa yàlla dogal njëriñ boobu ak lor boobu ci ñoom kon nag nit ñi jëruñu ngay def boo dee def na yàlla tax ndax ayam fa man laa yanfau lgayra nafsahu wa man laa yaqi durran fa kayfa yusibu nee na ku mënulul ku mënul jariñ sa bopp ndax mën ngaa jariñ keneen ku mënul lor sa bopp ndax mën ngaa lor keneen te nit mënul jariñ boppam mënul lor boppam waaw lépp looy def sa bopp dafa fekk yàlla ànd ci mu nekkoon nag nag ma moytul nekk ràmbaaj ndax nee na ràmbaaj du dugg na qatuutun jinaan allahi laa yadxulannaha wala qaatiul arxaami daaka tabibu nee na kii dog mbokk nee na du dugg àjjana nee na rambaaj itam kii tas mbokk gi nee na du dugg àjjana nee na itam bul nekk espion di xam mbooti nit ñi nee bul nangu itam jëfi espion nee na maa ngi lay moytandikuloo ndikuloo ree ju bari ak po mu bari nee na ndax ree ju bare po mu bari yàlla bëgg ko wa iyaaka dixkan thumma lahwan duabatan wa yanifu min hadi alxisaali xasibu te kat nee na moytul ma jëw moytul ma barab bu jëw nee na ndax barab bu ñuy jëwee yërmande yàlla du fa wàcc wala wala tanzilu ruxma bi majlisi gibatin wa dikri duna daxkin naxaaka nukubu mu ne itam wala wa ficlaka laa tacjab wala tatakabaran fa innaka fi shakkin hudiita yuribu nee na bul naw sa jëf bul jaamu yàlla ba naw ko foog ne yaa gën nit ñi waaw moo xam ay sarax la yooyu def donte ay million la jàppal ne yàlla nangulu la ci dara waaw pour rekk nga bañ caa naw sa jëf donte ay julli yu bari la yooy def guddi wala ay azkar ay werdu yooy def nee na bu ci naw sa jëf ba foog ne sax ki ko deful yaa ko gën wala baran bu rëy rëylu foog ne dara nga nit kese nga mu ne ndax nit feek demagul yowmal xiyaam ba yàlla dugal ko àjjana mu ngi ci kumpa te ku nekk ci kumpa nag warloo rëy rëylu loo naw jëf mu ne wala taataqid fadlan ala alxeyri taxtarir fa inna xitaama al amri anka taxibu nee na looloo tax itam bul foog ne yaa gën keneen ku dul yow nee bul seet ngëneel mukk ci keneen nee na ndax nee na mujj ga ci loxo yàlla la nekk te kenn xamul fu baax ngay mujj wala fu bon ngay mujj kooku yàlla ko xam mu ne kon maa ngi dénk sama mbokki commerçant yi nee na ñu bañ di puukarante ci wàllu bénéfice wala wërsëg bu bari wu leen yàlla defal wa xaqa ala tujaari an an laa yufaaxiru qubayla ribaaxin wal xisaabu xadi xasibu mu ne wa xaq yey na ala tujaari ci commerçant yi an yu faaxiru ñuy bañ di puukare wante xobay la ribaaxin ci bénéfice bu bari mu ne ndax wal xisaabu regle ba ëllëg ca la leen yàlla baaxe ci wërsëg nee na xadi bu regle bu tiis la waaw mu ne itam bul wóolu pexem yàlla waaw ndax nitu yàlla yëpp ñu ngi nekk rek baynal xawfi war rajaa xamaguñu fu ñu féete wala fala tamanan makral ilaahi amaanatan wa man yamanan makral ilaahi yaxibu nee na moytul ma ñaaw njort nee na ñaaw njort baaxul jullit dafay rafet njort nee rafetal njort ci say mbokki jullit nee na rawatina yàlla mi la bind rafetalal njort itam ci moom mu ne itam bul nangu mukk wàkkirlu ci keneen ku dul yàlla ndax kat yàlla moo doy sëkk jaam yi ci lépp kon na nga lu ci yàlla mu ni ida ma man dahru yowman baliyatan yukaffiru min daka albalaa'i zunub nee na bu fekkente ne jamono sànni la la tiis wala njàqare wala musiba nee na bu ko jàmbat sante ko yàlla amaana njàqare yooyu ak tiis yooyu ak musiba yooyu moo xam feebar la wala ñàkk la wala lu mu mën ci doon nee amaana yow yaa ngi ko jàppee musiba fekk mu ngi lay faral bàkkaar yoo yëgul moo tax mu ne wa in ditta minha sabra ayqin bi annahu bi xeyri xisaabin li saburi yuthibu nee na bu fekkente ni sax musiba yooyu danga koo dëgërloo muñ nee na na xam ni muñkat yi ëllëg yàlla du leen le daf leen di dugal àjjana bi xeyri xisaab nee itam maa ngi lay yëgal ne musiba yooyu yàlla di teg nit ñi léeg-léeg dana ci far bàkkaar boo xam ne julli du ko far woor du ko far joxe azaka du ko far yàlla teg la feebar koy far wala mu teg la ñàkk wala mu teg la problème benn mu teg la ko wala mu teg ko sa njaboot moo tax mu ne wa yumxa biha ma laysa tamxaahu taatun wa tamulu law daamata alayka kurubu moo tax mu ne kon wa daawim ala dikri alladi jalla dikruhu bi dikri ilaahi tatma innu mu ne wa daawim nanga nga sax waaw wa daawim na nga sax ala dikri alladi di tudd buur bi nga xam ne jalla màgg na dikruhu turam wa nee na del tudd yàlla boo bëggee ànk mu ne ndax bi dikri ilaahi ci tudd gi ngay tudd yàlla sama yàlla ji nee na ma innu ci lay dale qulubun xol yi nee na xol yi ñu ngi dale ci tudd yàlla ala bi dikrillaahi ma innul qulub mu ne kon boo bëggee sa xol dal ci àdduna say problème wàññeeku del bari looy tudd yàlla bu fekkente ni bëgg nga àgg ci yàlla wa in turid nayla alwusuli li xaaliqi alayka ala alhadi salaam tusibu mu ne bu fekkee bëgg nga àgg ci yàlla nee na del baril del baril looy julli ci yonent bi nee na julli ci yonent bi dafa bokk ci escalier yi nit ñi di yéege pour mën a àgg ci yàlla wa in turit naylal wusuli li xaaliqi alayka ala alhaadi salaata tusibu mu ne ndax wa ma xalaqa arrahmanu cheyan li nafsihi si wa sayidi almahmudi wa huwa xabibu wa ma xalaqa bindul arrahmanu yàlla cheyan dara li nafsihi ngir jëmmi boppam si wa sayidi almahmudi ku dul sang ba ñu sant te moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa xabibu ndax mooy soppe yàlla bi yàlla bindul kenn pour boppam ku dul yonent bi waaw leneen lu mu bind rek daf la bind ci barke yonent bi waaye lu mu bind pour boppam moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayidi almahmudi wa huwa xabibu nee na wa awjada amal na nag moom yàlla baaqil xalq nee na mbindeef yi des yi des taadima xibbihi ngir rek màggal soppeem ba di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon taxiyatul ilaahi nee na nuyoo yàlla tatibu boobu xam ne dana teey alayhi yàlla nekk ci moom mu mel ni kon hiya dunya aqallu min alqalili wa aashiquha adallu min aldalili àddunaa ngi noonu daal lii yi néew yëpp moo ci gën a néew nee na ki ko bëgg itam nee na mooy ki gën a yées yi yées yëpp kon tabaarakallaahu yal nañu yàlla soppaloo boppam te soppuñu yal nañu yàlla boole ca kuréelam ba te musaluñu ci kuréelu seytaane yal nañu yàlla defal tawfiq ci dundu àdduna ak dundu àllaaxira tabaarakallaahu mbokk yi loolu la ñu indi woon rek ci zajrul qulub pour doon yeggalee waxtaan wi nga xam ne moom leen ci dooroon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم yi déglukat yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw dellu na ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq ànd ak seen xarit Pape Dia الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له wa ashhadu anna wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ballaga alrisala wa ada alamaana wa nasaxa alumma wa kashafa algumma wa jahada fi llahi xaqa jihaadih xatta ataahu alyaqin allahuma salli wa barik alayhi wa ala alihi wa asxaabihi وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته bokki jullit yi ginnaaw bi ñu musloo ci seytaan yi mu ngi sant yàlla di sàkku ndimbal ci moom di ko jéggalu di sàkku ci moom njub di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wér na ni képp ku nga xamante ni yàlla jubal na ko amul kenn ku ko mën a sànq képp ku nga xamante ni yàlla bàyyi na ko ci cànkute amul kenn ku ko mën a gindi maa ngi seeti di dëkkal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rekk la amul kenn kuñ koy bokkaaleel te maa ngi seede te dëggal ni sayyiduna muhammad jaamu yàlla la te ndawam la jotal na li yàlla tegoon ci loxoom matal na itam wëllëre ba laaye biir na xeet wi wuññi na njàqare li jihaat na ci yoonu yàlla na mu yeye ba yàlla xëy moom ko kon ñu ngi ñaan salaatu salaam yàlla na nekk ci moom yàlla na ko yàlla defal barke defal ko ay ñoñom defal ko ay saxaabaam ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan waam solo te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa li ci nekk ci ay ngëneel li ci nekk itam ci yiw ak axadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko di ko def ak ñu xam ni itam ndigal lu jóge ci yàlla fa inna asdaqa alxadis kitaabullahi taala wa xayru alhuda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuuri muxdathaatuha wa kullu wax yépp bi ci gën a wér moo yàlla bi li yàlla wax moo gën a wér ci wax yi ñu ne itam njub yépp bi ci gën moo njubu sayiduna muhammad nee na mbir yépp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokku ca dina lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne daf ko ñaawal loolu bidaa la te bépp bidaa ak cànkute la te bépp cànkute ku ko topp safara la lay dugal kon yàlla nañ ci yàlla musal qaala ahlu tafsir wal ahadith inna alsalaata walsalaam ala sayidi al anaam afdalu alcibadat wa axsanu alxaalaat wa acdamu alqurubat wa ashrafu almaqaamat li qawlihi taala inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayuha alladina aamanuu sallu alayhi wa sallimu taslima ñu ne ñooñ firikatu alquran te mu di firikat yi ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu xadis wax ne ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci jaamu yàlla yi gën bokk na ci melokaan yi gën a rafet ñu fekke ko jaam bi bokk na ci yi gën a mën a jegeñal nit ki ci boroomam bokk na itam ci maqaamaat yi gën a tedd mu ne ndax yàlla moo wax ci alquraan ni wér na ni ki man yàlla ak samay malaaka ñu ngi ñaanal yonent bi di julli ci moom kon nag yéen way gëm ñi ñaanal leen yonent bi julli ci moom kon ndigal li mu ngi jóge ci yàlla moo tax axraja al imaam ahmad wal xaakim wal bayhaqi an umar ibn alxataab radiallahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal qaala rasulullahi qaala umar li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam afala ajcalu thulutha ducaa'i fi lsalaati calayk qaal fa in zidta afdal qaala ajcalu thuluthayn qaala fa in zidta fa huwa afdal qaala bi abi anta wa ummi ya rasulallah ajcalu ducaa'i kullahu alsalaatu calayk qaala idan yakfiika allahu amrak min dunyaaka wa axiratik ñu ne imam ahmad ak xaakim ak bayhaqi jëli neen ci omar ibnu alxataab radiallahu anhu omar ibnu alxataab doon wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow yonentab yàlla bi mu ne ko ndax li ëpp ndax samak ñaan ma seddale ko ñetti xaaj genn wàll gi ma koy def di ko julli ci yow yeneen yi ci des mën naa ko def alxuraan wala ma def ko leneen waaw yonent bi ne ko benn xaaj bi ma jox di ci ñetti xaaj yi doyu ma soo dolliwaatoon dal mu ma gënal fa in afdal mu ne ko kon bàyyil ma jël ñaari xaaj yi kon ci ñetti xaaj yi jox la ko dese benn yonent bi ne ko ba léegi itam loolu doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal soo dolliwaatoon itam moo ma gënal mu ne ko moom Seydina Umar daa wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulallah ajaalu duaai kullahu alsalaata aleyk ne ko giñ naa ko ci sama baay sama ndey maa ngi giñ yow yonent yàlla bi ne sama ñaan yépp danaa ko def mu nekk julli ci yow kon nga xam ne yonent bi ku xeroon la ci ñuy julli ci moom waaw ndax yiw wi ci nekk pour jullit ñi mën ko jëriñoo moo tax bi Seydina Omar waxe loolu yonent bi nee na ko idan yakfika allahu amrak min dunyaaka wa axiratik mu ni ko kon nag yàlla dana la dana doy sëkk ci gardeel la sa mbir li màcc ci wàllu àdduna ak li màcc ci wàllu àllaaxira dootoo ci amati benn problème fekk yaa ngi julli ci man di bari loo koy def kon yàlla dana la teggil say problème mu àdduna ak say problème mu àllaaxira moo tax yonent bi wax na ne man salla alayya sallat alayhi almalaika wa man sallat alayhi almalaika salla allahu alayhi wa man salla allahu alayhi lam yabqa shay'un fi alsamawati sab wal ardina sab wal bihaari sab wal ashjaar wal nabaat wal tuyuur wal sibaax wal ancaam illa salla alayhi ñu ne yonent bi wax na ne képp koo xamante ni julli na ci man nee na malaaka yi danañu julli ci moom di ko ñaanal mu ne képp koo xamante ni julli na ci malaaka yi julli nañ ci moom di ko ñaanal nee na yàlla dana julli ci moom mu ne képp ku nga xamante ni nag yàlla julli na ci yow nee na dootul des nag dara